leen a jox seen avance ñëw ñëw CNG ñu signé avenant pour ñu pour ngeen ñëw daje fii waxtaan ci làmb ji kenn ku nekk bu bu bis baal la nga ca war a def. Mhm. ak woote. donc gis nañ ne vraiment ñoom ñi fi jaar ñëpp lool ci lor lañ tënku. Mhm. alors donc dañuy wax ne rek euh, mbir mi sport kese la. Mhm. sport bi nag nañu xam ne rek vraiment. sport moom d'accord lamb nag dafa am beneen réalité. Mm. bokk li ngeen def nii bu bu ku ñu woo ñu tëggal la nga fecc donc loolu aar bi la. Mm-hmm. Ah, culture bi la. alors mais sport bi nag bu ñu ko fàttee sport nag vraiment ndam a fi nekk defet a fi nekk ak match nul mm-hmm. lenn lu ci nekk lu lu ñu ci lu la ci yàlla may rek nga jël ko xam ne lii la la yàlla defal. Mm-hmm. Euh, ñu xam ne rek ci génnul cadre sport. encore fois de plus toujours président bi Bira day wax ne nañu yéen yéen a moom làmb ci te nit li mu moom da koy téye du koy yàq. CNG deful lu dul gunge leen. évidemment loo gis day am ay règles day tegu ci ay règles bu bis baa daal na ngeen ñëw ci jàmm ak salaam. gis ngeen ni ñu ko defee fii amul kenn koo xamante nañ la bàyyi nga dugg parce que fii yéen rek lañ fi woo. il faut que aussi mbër yi di xam ne que ne face to face yi ñuy def nii wax ñu gën woote fii kenn ku nekk indi fi gàngoor goo xamante ne bi te leer ngeen ne du lu ñu dugg ñu nekk ci mbedd ma toog loo tamit vraiment aussi mën naa ñàkk nañu bàyyi xel ci ne rek de vraiment mbir mi yéen ñaar ñi nga xamante yéenay daje yéen ñaar rek ko ko séq su ngeen ñee waxtaan te wax ji tegu ci teggin loolu aussi na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que suñu teew fi suñu teewaay fii loolu daf ci bokk d'abord ñuy na am distance bu ñuy laalante ba ñu ñëwee sax laalante bi ah parce que ay mbër mën nañu wax ba pare saafonte mën nañu wax nuyoo mais loolu day fekk mu nekk ci cadre fair play mm-hmm. mais bu fekkee vraiment ci cadre euh, xëccante que puusante que kii loolu vraiment CNG nangu mm-hmm. encore une fois de plus vraiment ñi ngi rafetlu tey wax nag encore une fois de plus euh, sponsor yi mm-hmm. euh, président Bira day wax ne képp kuy jàppale làmb rek moom ngay dimbali képp ku jàppale promoteur rek moom ngay jàppale parce que moom la moom moom la ñu dénk làmb ji mu jaboote ñëpp uuf ñëpp kon tey jii promoteurs yi jóg jël seen alal def ci donc tey xeebuñu ñi xeebuñu CNG ñi nga xamante ne bii ñi ngi yor sponsor yi ñëw di gunge xale yi donc euh, yàlla leen yàlla defal jàmm vraiment daal macha allah euh, encore une fois de plus toog taxawaay teewaay bi rafet na. donc nañu ko xamee ne lii yéen ko moom ngeen sàmm ko ba ni ñu déggee ancienne gloire yi yéen bu ëllëgee tamit yéen nekk ay ancienne gloire ak ainsi de suite ainsi de suite vraiment Baye Balla émission bi rafet na macha allah. jërëjëf kooku moom mooy sunu père ah Thiam kooku mënul ñàkk tey euh, euh, jàkkaarloo bu toll nii tey moom mu toog commandant Thioune mi ngi toog suñu père Cissé mi ngi toog Sourou Fall grand manager moom tamit mi ngi toog. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokk yi nag ñu jëm ci grand combat bi dañ dem dem ci daj dëpp gi mbokk yi Baba Jaxal sunu ndeyjoor doomu jàmm gën Sicap Mbao beeg fas Mbao beeg Tali Jaara jàpp sam-sam ah, buy buy dugg si ci biir arène nationale bi ñooñu ñoo koy topp waaye baaba Jaxal yaa ngi bëri xale boo xamante ni phénomène la ci biir Médina nag ndax yaakaar naa ni saa buy ñëw waa Dames dañuy ñëw buy ñëw kusum danuy ñëw buy ñëw gël tàppe bi ñoom ñëpp Fass Colobane bi ñoom ñëpp ay teew kon mbokk yi bés boobu bés bu neex la yaaram Art Events defati ngeen seen manit woote ngeen bés boo xamante ni bés bu mag la ci wàll làmb ndax espoir yi ngeen boole waaw amateurs yi bëgg nañu loolu. Ibou Afia maa ngi lay bëgg ñu dem ayca ah, bisimilah. ñuy moom moom Bamba moo moom lii bu ñuy dund ak bi dee lépp moo moom moom Bamba yaa ñuy moom ñëpp mbokk yi kooku moom mooy euh, Ibou Afia ah booy bi phénomène la bi muy mujj ci biir euh, arène nationale jël pré daan waaw waaw waaw déglu ba tamit. mais na xamu ba lépp jàmm. alhamdulilah dégg naa da nga génnoon quoi dem xam nga am yeneen loo yoo yokki lan moo lu waral génn bi tey Ibou Afia la wala ah, dafa am leneen loo teg sa bët ci kanam. alhamdulilah bisimilah inna yàlla. ginnaaw ma sant yàlla def may sant sama ñaari waajur mm-hmm. di ñaan sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ sama yaay yàlla fekk fekkee sama njëriñ su ma nag di sant kenn muy maam Thierno baawul laaxi baawul jann sama sëriñ sama wasira ma wax si moom sama xale fees borom daara yàlla fi yàgg te wér waaw di nuyu si ak baay daaro yi waaw wasalaam bas kanam dama wala déggoo ma dama ne gis nga génn dem yokk ji leneen hmm. lu waral génn bi Ibou Afia la wala. déedéet. Mhm. nekk si làmb. Mhm. di yëngu si làmb. Mhm. te làmb dafa baaxoo entraînement. ak doole. dëgg la musique deuxième la. mais entraînement mooy lépp. te kàttan mooy lépp. mbooloo bu lay topp. boo jógee ñu jóg a defal fulla yàlla na ma yàlla suturaal. di nuyu grand frère Diop. di Euh, sama mbër sëlu yàlla na leen yàlla may ndam di nuyu waa école dik jël biraama ci war ku mel yor sama cause jërë biraam yàlla na fi yàgg te joor di nuyu sama président Idouba Mar Mbaye yaa ngi si biir président Mar maa ngi lay nuyu ku yor sama cause cause Aziz di nuyu nag Morok bu ma nekkoon Ah. ci li nga fa wuti woon doole xam nga yeneen idée xam-xam wala lan. waaw xam nga boo tukkee génn. Mhm. di nga am benn expérience bu yokk si yow. Mhm. tamit lu la fa yóbbu entraînement. Mhm. bu dee dëgg la xam nga tey tukki neex na. mais nag si lu ngay yëngu. ñii dinañ toog di xaar bu demee lu muy indi. dina am doole. wala du am doole. mais nag alhamdulilah bu ñu demee. fekk fa suñu grand Ibou Socé. Mhm. Serigne Marie Ndiaye. Mhm. maa lay sant bu baax di sant sa doomu ndey Assane Diouf. Mhm. di sant waa Medina. di sant nag Resource Business. di sant waa Thiès 212 bi. ku ni Babacar. Bala Sow. Fallou. ah ku mel ni Adama sama jabar ji borom ceeb yi neexee ne di nuyu di nuyu Yakum naar rek. sama Baye Fall bi. 33 plus 2 bi yaa moom Yakum yaa ngi si waaw du nuyu nag sama grand sama lépp muy Ameth jaw Diaw business bu wax nag sponsor yi waa Suisse Gold ak Black Aigle ñoo bokk dëkk te promoteur yi tamit yéen dëkk bëgg naa nag ngay ñëw bu baax jàppale promoteur yi ndax tey yii ne amaana tamit sponsor bu ñu jàppalee làmb làmb day dox te tey jii ne ñi ñëpp war a nañoo sol pour mm-hmm. na gaa yi ñëw jàppale leen làmb di sant kon suñu père lu mu wax nee na biraa nee na bu bi jàppalee làmb rek moom la jàppale kon gars yi ñëw leen te yàlla tax ngeen jàppale promoteurs yi ndax boo leen jàppale promoteurs yi promoteurs yi ñun dinañ nangoo fay mbëri dañ jàppale mbëri ndax tey jeunesse Sénégal bi yëpp maanaam ñu bëriñ si làmb kon làmb bu échecgee kon Sénégal dina garaaw ndax espoir làmb maanaam tey gune yëpp moom lañ bëgg kon di wax gars sponsor yi ñëw leen ngeen jàpp si làmb ji Mar Mbaye maa lay sant nag waa naataange bi yëpp nag. ñoo ngi ñëw di leen woo maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan. bisimilah maa yàlla jërëjëf Serigne Touba. Mhm. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci suñu ñaari waa ñu ngi ñu ñu fi teew ñëpp. waaw mhm. ah, di nuyu sama Serigne sëñ Mamor Mbacke Afia di nuyu njabootu sëñ bi yëpp. Mhm. siyaar kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñëpp. waaw avant tout dama am sama benn boy bu doon toogal ci mbikaay bu ñuy wax Amed Niang sama combat ci ëpp moo ma doon toogal yàlla da koo jël ci fan yi ci ginnaaw waaw di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare aljana di ko jaalewaat famille bi yëpp di ko jaale tamit waa di ko jaale mbokk yëpp di ko jaalewaat famille bi yëpp di ko ñaanal képp ku fa fekk ak ñu ko fa fekk suñu borom xaare leen aljana waaw di nuyuwaat ñëpp ah. waa di wax ne tamit waa di nuyuwaat sama yaay mère Ngoné maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu sama père di nuyu père yi sama père Sourou Fall père garaaw waagaan per bàcc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama boy ci suuf waaw di nuyu waat waa Kajoor ñi may ñaanal maa ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp yaa ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp Baba Diakhal dem na wuti na doole ñëw na gis nga ko ni mu toll que ëpp na waaw ëpp na ma nii waaw liggéey na waaw ah, moom am na lu wax moom am na lu mu wax foofu ba nekkee Maroc waaw euh, kii woo ñu appel ñu def def benn jàkkaaroo ñun mhm. buzz ak promoteur bi mhm. mu toog ne moom mbër ma ko waaw yokkal maas bi nga ñëw mais nag wax jooju am na lu mu wax. daa jàpp ne yokku maas bi. te dem pataaji ñëw. Mm-hmm. wax du du pataa. tey nit booy màgg da ngay sa yaram. moom sa bopp. mais nekkul da ngay jékki-jékki rek dem fee yokku maas bu nga xam ne après ëllëg da jàpp. non baaba jaxal bi mu. liggéey da ngay ànd ak ANRAS sa yaram ngay màgg di dem ak moom. Mm-hmm. sa santé day baax. Mm-hmm. le treize incha allah dinañ ko wane lu tax ñu jóge fii dem. le treize incha allah dina ko wane Baba Jaxal bi mujjee bëri ci arène nationale bi ak bii am na différence bii moo gën a moo gën a jël masse xaw ma nag ndax doole la wala lan. mooy lu ma la wax. nee naa la masse. bu yokk na ànd ak sa doole ak sa yaram. ngay mun say mouvement entraînement boo si nekkee nekk da ngay def def maanaam doo yëngal sa yaram doo ngay néew di dem déedéet kon après lu nekk si yow dootul nekk si yow maa ngi ci sant sama moo mi nga xam ne moo ma yor saal bi foofu noonu kosumoo Papa Sita di sant Baye Fall yi nag waa Mbaaru sëñ Fallou bi. di nga sant léegi di ko jox Kara. yaa ngi si biir ak sama jëwrin maa leen sant Fallou Galas. Jaxal nga wax ak moom parce que bés bi waxam lay wax nii ah, benn xaritam bu nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon nekk mi ngi foofu Morok. Hmm. des fois damay romb sa xalaat muy jël kóolam ne ay vidéo jël saaka moom kaay ma may ko. te ma du ma doon man ko kaay ma may la ko jël vidéo boo nga envoyé ko Ibou. Hmm. waaw lan ngay wax waaw man maa ngi koy déglu le jour combat. waaw kan mooy diriger combat mu laaj ñu def ko. incha allah non non waxal ak téléspectateurs yi lay seetaan. Ah, Ibou xam nga lu ñëwagul mënoo cee wax. waaw maanaam lamb la c'est-à-dire. waaw le treize la. moom lañ jëm ñoo ngi xaar mu ñëw. non non yàlla ci yàlla suturaal dama ne promoteur bi daf leen fay xaalis pour ngeen jaay bés bi. amul lu ñëwagul kenn mënu cee wax da ngeen di wax waxtaan ci bés bi. bis bi jar na bu yàgg bu mu dajee billet dem la la lamb di jaayu. waaw waaw. bis bi jar na bu yàgg. kon su ma dagg woon biyee dem laa ma ji du jaayoo kon du jaayoo. Hmm. Ah, laa ma jaayoo na. te eh, loolu sax laa ma ji. maanaam su ma demee su ma demul day jaayoo ndax man maa koy jaay. waaw ndax maa koy jaay lépp lu si am tamit maa koy def maay bëre maay daan maay taare stade arène nationale maa ko moom si man lay muslu. yaay mobilisé yaay bëre yaay daan. nee la arène nationale bi moom si man lay muslu en waaw maa yàq siège bi maa ko defaraat. waaw ainsi eh, teggil ngeen ma siège hmm. ah mais dër bi laay maabal bu boobaa xoolal ut leen ay maçon yu baax ñi xam ne dañ koy defar hmm. <laughs> waaw. ci wàllu mobilisation bi. moom moo yëg arène bi muslu ko. moo fa ñëw def fa kenn deful moo fa ñëw di mbëkkaate. Mhm. c'est normal arène bi muslu ko. waaw mooy yaa ñëw di mbëkkaate war na la muslu. waaw moo ngi noonu da ngay bàyyi mbëkkaate bi nag mu mag baa ngi nii. nag bu mag bi waaw waaw waaw fii départ hmm. ah, na. waaw wóyul Bamba nee na nga ne nga ne ko lan moo tax. ci Instagram lan moo tax mu ni ko mu yokk maas. Hmm. loolu la treize dañ koy dañ koy ok incha allah. yokku masse bi dafa la arrangé. non le treize dañuy xam mais bi mu ñëwee yokku na masse wala yokkul. non naaj boobu boo bi mais dama ne la arrangé la rek naaj dafa demoon liggéey xam nga liggéey la ñëw na ci jàmm. waaw loolu c'est que amul lu tax mu ne la mu ne ma yokkal masse bi. Mm-hmm. ndax keroog dañ doon wax euh, mu jéggi léegi bi ñuy wax ma def nii sama kanam mu ne ma nii mbër yokkal masse bi ñëw pour moom masse bi maanaam day doon pota biir bi lex daal di def nii lex yi def nii. dara non non dama dem pour liggéey pour ut doole. wax naa la ko maanaam ni ñuy màggee suñu yaram di màgg noonu la ñuy màggee te ànd ak suñu xool ak suñu lépp di baax waaw loolu la yokk maas bi. am na ndox bu bëri bu nekk ci moom. mu doy waar est-ce que du nekkul ne loolu tax mu dana nga yokk maas bi yaa ngi sóoraale bëri bi. bëri boobu noonu. Mhm. si ma la fekk baax. man du ma wax sama bopp mbooloo bi topp ma. Mhm. xam nañ lu nekk si man. Mhm. maanaam bëri boobu noonu maanaam dugg ci ruux ci rax génn. maay borom. dëgg la nag euh, ndox du weesu. Mhm. maanaam si yoonu ndaw mais jeex na. Mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Mhm. ndax ñu ñu xam. jaam gan gën si kaa mbaaw sam-sam. yëmbal benn baraat. dara jóg wax ko. dem naa fu ba dum bafat di bëre damay toog guddi dégg tournant sax ñoo xam ne dëkk ma dem dem naa ay marché jaamul sax damay bëre dëkk bi tournant di naan ay marché ak feneen ko dañoo tarbi bu bëre mais après le treize incha allahu rabi la xam kuy baax le treize incha allah la Baba Jaxal di wane boppam Jaxal Ibu Afia arbitre bi sifflé génn seen diggante kan mooy njëkk a dox ci sa kaw morom. waaw lamb la rek. Baba Jaxal taxaw xaar ko wala wala da nga koy da nga koy da nga koy. moom lu ci koy dégg bu ci neex. boo hmm. ci bëgg kon nañ ko neexal nañ dem cinq minutes ñëwaat. ah départ mu neex bëre ah. moom mu départ. yow nga taxaw xaar départ na ah départ na. koy maye. xeex cinq minutes. non xeex bëre dóor cinq minutes amul daan dugub kan kan jàpp bëre kon lu wax yokkal maas mhm. si loolu quoi mhm. laa ko bëgg a tontu mais Ibou lan moo tax nangoo wax ak euh, Baba Diakhal Baye Fall la daa yaru maa ngi wax maa ngi wax maa ngi wax sax de Baye Fall la dafa yaru kenn du yow yaa a yaru waaw ah, loolu am na loolu moom am na kon baale ma baale ngeen ah, woote comme yéen ñaar da ngeen a yërëmante kay teew ah, na woote naan bàyyi ngeen woote wooteel Ibou Afia dama lay jox xam nga rek waaw yaa ma gën a ah. dëgg neexul ma nii moom maa ngi woote maa ngi woo waa bi maa ngi leen woo man Baba Jaxal waa Sibi Xotaan waa di sant nag Matar Matar bu Baba Jaxal maa ngi lay sant bu baax sama fils sama xarit di woo sama waa kër nag Matar waa waa Sibi Xotaan bi yëpp su ma si di woo sama grand frère borom Ziguinchor muy Mbaye. mbay LC LCD Mbaye maa ngi lay sant bu baax mbay LCD maa ngi lay woo nag si làmb ji nga ñëw jot si bolog yi jàppale Baba Jaxal waaw Mbaye maa ngi lay woo borom Ziguinchor borom écran yi maa lay woo bu baax nga ñëw jàpp si laamba ji maa ngi woo Ameth Diaw Diaw business sama grand la Ameth Diaw moom su ma ko woowee day ñëw su ma ko woowee day ñëw mais nag soxla ma tey lu ma soxla mooy lan bolog ngeen ma tigé bi passé 14 bolog laa jaat di laajaat mais defaral leen ma 25 ma ñëw dégg ngeen waaw. su ma si jógee may woo Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté sama xarit la sama lépp Moustapha Diakhaté maa lay sant bu baax waaw yaa ma dagal billet ma dem Maroc seetoo si dara te xooloo si dara maa lay te incha allah naa si kàttan yàlla Moustapha Diakhaté waaw su ma si jógee nag di woo borom daaru Serigne borom daaru maa woo bu baax si combat bi waaw di woo waa Waalo ah di woo Abu borom Fora maa woo di woo Maas Séeri Maram Maas Gueye Séeri Maram maa lay nga ñoo jàpp si bolo gi di woo Gora bàyyi ma see Gora bàyyi ma maa lay woo nga ñoo jàpp si laamu ji bu baax a baax a baax di woo madame Balde waaw madame Balde kook sama yaay la sama lépp maa ngi lay woo nga ñoo jàpp si laamu jëndal si bolo gi waaw su ma si jógee nag di woo Mandiaye Mandiaye Sall waaw borom gaaya dëkk seet naa seet naa waaw Mandiaye maa lay woo di waa gaay yëpp waalo bi man Baba Diakhal maa ngi leen woo ngeen ñoo jàpp si làmb ji bu baax a baax a baax a baax boo waa zappe mafia zappe bi yéen si biir ah woo taala taala taala optip kooku sama rak la sama lépp waaw kooku ku mu defarul verre baaxul voilà man sax jox ma verre ah. oui taala optique booy boobu ndaanaan la. kooku sama sama sama doom la di woo Gora Gora Guèye frère maa lay woo borom fi saak man Baba Diakhal maa lay woo yow dañ siy jàpp nga ñëw jënd ma bolok. bolok laa soxla incha allah si laa ma ñëw góor a frère waa ay moteur camion lay jaay ay ma mañam yooyu la góor a jaay maa lay woo bu baax nga ñëw jàpp si waaw su ma jógee nag di woo à général business ñaan maa lay woo ku mel ne Omar Aw maa lay woo Omar Aw Zos maa lay woo ah di woo Bas Bas borom Pikine Bas borom Paaka maa lay woo baax baax Fallou borom États-Unis maa lay woo Fallou Niang maa lay woo mu ñëw jàpp si laamu ji bu baax a baax. jàpp si liggéey waaw di woo Fallou sama capot bi ah. Fallou capot borom États-Unis maa lay woo ku sama yaay kon lu ma wax waa Black Aigle yéen ak ñii yéen Yaram Aar dama koy waxaat ndax man su ma gisee leen lu dëkk sama koñ dam si jàpp mais bëgg naa nag ngeen ñëw sponsor euh, wa Yaram Aar ngeen jàpp si laamu ji bu baax a baax waaw waaw nañ ñëw di woo Thierno Diop borom Seras Thierno Diop yow sama garaa nga sama lépp nga on se connaît xamante nañ maa ngi woo jeex na sax ñaara si des. waaw di woo Papa borom Fora di woo Matar borom Sibi di woo Seydina Alène borom Kër Mbaye Fall Seydina Alène Couture waaw Couture yow maa lay woo nga ñëw jàpp si bu baax baax maa lay woo si làmb su ma si jógee nag di waa Maroc ku mel ni Ibou Socé sama grand sama lépp Mari Ndiaye ah Seck borom ay fan waaw général business maa lay woo yéen ñëpp borom Maroc man lay woo sant naa leen ku mel ni Wilane ah Kate yéen fa yéen gaan hamburger rek laa doon lekk. Mhm. Mhm. damay entraînement di lekk bàyyi ma yaa ngi si biir ah, Assane Diouf maa lay sant bu baax a baax contrôleur marqueur et ñëpp yéen si Massamba solom qui a peur sinon y a rien mas kooke waaw kooku kum léewul appartement maanaam doo am fooy mas borom Maroc borom lépp doomu ndey baax a jaxal maa lay sant bu baax a baax Lamine Seck borom Pikine borom Maroc maa lay sant bu baax a baax waa di sant nag bébé Sey jërëjëf waaw bébé Sey kii muy bébé Sey doomu maître sama grand la ba ñu xamante si portable lañ xamante mm-hmm. wallahi mu inscrire ma salle amitié fitness ku mel ne côté course bi mm-hmm. lënd maa ne maa ngi ñëw ñu ngi may xaar lënd maa ngi ñëw waaw BBC Omar sa fay maa lay sant bu baax di la jaale sama papa maître Ousmane Seye taalibe sëñ Saloum bi daa na ko sëñ Saloum teeroo BBC yow jàmm si yow côté ah, yaa ngi si biir ah sant moo jël jël couture maa lay sant woo waa sam-sam un deux trois waaw Abdou Samak. maa lay woo waaw na ñëpp ñëw ñoo jaajëf. dara yow amal jàmm rek mbokk yi kooku mooy Baba Jaxal doomu Samsam bi waaye nag. am na ñu ma àndal Baba bi nga wootee ba léegi. may ma waaw may ma tuuti rek ma jël kii waaw dégg may ma may sant nag ñu ma àndal ñëpp ku mel ni Baye Dieng. waaw Cheikh Faye. Mm. Ah, ay Baye Thiam mafia bi ñëpp. ñëpp maa leen di woo ñoom Amadou Ndaw ñoom ñëpp maa ngi leen sant. jaajëf waaw nañ ñëw jaajëf. kooku mooy Baba Jaxal woote na ba pare booy léegi bu ñuy bëree liste la ñuy indi ah mbokk yi <laughs> pour ñu jàppale leen ci bés bi Baba Jaxal woote na ba pare waaye nag Ibou Afia nee na day woo monsieur le maire Ahmadou Bamba Fall maire de la commune de Médina monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba monsieur Seydou Gueye monsieur Youssou Diall Youssou Diall moom tamit ma nga dëkk foofu ca 19 ah maman Awa Diène député monsieur le maire Abdoul Aziz Paye mooy maireu Colobane Fass Gueule Tapée mi ngi koy woo bu baax ci combat bi pako Jackson Thiam Zano zano nan Gibraltar Bokande Thierno Ndiaye Colobane Yatma président ville de Dakar basket Babacar Calypson Serigne Soxo cheveux Alla cheveu Madior ville de Dakar Omar Touré ak famille Touré bi yëpp rue 25 angle 20 Mame Fatou Diagne madame Isen Bass Thioung Ablaye ak Pa Ibra Diagne ah ñooñu ñëpp Ibu Afia moo leen di woo ci bés bi nga xamante ni moom la war a jàkkaarloo ak Baba Jaxal ka président Fann Daouda Pouy ah Seydou Baye Fall Pa Abdou Boy Ligo borom laadum yi Maam Souley transitaire Ibu Afia nee na mi ngi leen di woo ci combat bi Saliou Fall Mafia Sacré fay Lada Fallou Faye Keba Kanté Saliou Thiouz Koloban Tafa Kanji Moustapha Kanji nee na mi ngi koy woo ci combat bi ah ak Moustapha Guèye ah mi ngi leen Ibou Afia mi ngi leen di woo ci combat bi ak Pape Sow Pape Sow borom Médina rue 31 angle Corniche ah Souley Ndiaye ah Ibou Afia nee na mi ngi leen di woo ci combat bi Souley Ndiaye ak. Euh,